léegi Quench am na benn combat boo xam ne bëgg naa waxal ma ci avant may dem lu tax mooy euh, macha allah heure boo bëree ñu gis na technicien moo bëri. Ah. combat Modou Lo Ama Baldé noo gisee combat boobu. waaw combat la combat jànq la combat capital la combat roi des arènes la première Modou Lo tey jël na roi des arènes te bëggul ñàkk bi comprendre nga. parce que jël roi des arènes te ndam tamit loolu tamit moom mu ngi koy sóoraale Ama tamit dafa taxawoon mu ne nii mu war a doonee roi des arènes ajjanaam léeg-léeg noonu tey tey mën na dee comprendre nga mu doon bon combat boobu mënul bañ a loolu mën si ñàkk avantage su Modou mooy moom mooy roi des arènes avantage su Ama mooy dafa war a doon roi des arènes bi Pikine la jógee voilà noonu la dem Pikine la jógee mu war a ñëw jël revanche Eumeu tamit. Modou Lo tamit dugg Pikine duggati Pikine Ama Baldé war ka taxaw xamal ne nga fii ngay yem comprendre mu doon combat bu neex tamit combat boo xam ne ñu ngi développé bu baax a baax a baax a baax comprendre nga bi mooy Modou Lo lu am liggéey moo ko may lu mën a am si àdduna rek noonu njàmbaaram moo ko may waxuma nga ngir far parce man bëree moom rek moo ne sama bopp bi. bëri kan bëree Modou Lo moo nekk suma bopp. Mhm. mais lu mu mën a am si àdduna dafa nag tonnerre yëpp yow tonnerre si kaw la amu jëpp kan nga ci a am rêve bëreel ñoom ñëpp muy Ama Baldé muy Modou Lo ñoom ñëpp bëree ñoom mooma teree nelaw parce que li ñu soxla foofu laa bëgg a indi baar ñi mhm. mais dama ne la Modou Lo lépp lu mu am si si moom moo ko liggéey parce que tollu ni gars yi ñëpp dañ ne woon mënul doon roi des arènes rayante na tey tey bu bàyyi woon làmb wàccoo naa ay fan saam rayante na ba dugal roi des arènes parcelle te parcelle roi des arènes mosu fa dugg mu rayante ba dugal ko fa kon tey jomam jooju mu am ba doon roi des arènes na jomam jooju dina ko baa bàyyi ba mu ne si làmb Ama Baldé tamit mooy rayante na ba combat bu ñu ko bu mu dugg ñu ne risqué la combat bu mu dugg ñu ne risqué la comprendre nga mu rayante tey ba war a bëree roi des arènes kon moom moom xam na li ko war moom Ama moom xam na li ko war waaw. dinaa boo gisee seetaan nga Ama mu bëri ba taay seetaan Modou mu bëri ba taay seen bëri boo ko comparé lan mooy lan mooy différence lan mooy différence bi mooy que Modou am na avantage si bu baax am na avantage si si kaw Modou kese loolu mooy mbir mi de Modou Lo loo leen di gën a bëre muy yàgg moom muy gën a bees yow ngay gën a sonn amaa tamit yooyu yëpp du ko fi xaar arbitre bi da naan péri mu dal sa kaw te mbër moom boo bàyyee sa raj mooy loolu mbër moom boo bàyyee sa manin raj waaru te ñi lay conseil yëpp si touche bi la ñuy taxaw. ñu naan ñu arbitre daal sifflé mu dal seen kaw ak ak Modou Lo sa benn lañ. loolu du si dara Modou Lo amaa bu gëmee ne ne déggoo li ma laa ñi mu doon bëreel ñooy Modou yàlla moo naka may ndam Modou Lo tamit bu gëmee ne ku bëree Bombardier Ama Baldé waru la mën a te parce que Bombardier tolloo laa dara Ama si làmb du dara du doolee du yaram du dara macha allah catuma ko ñu koy ñaanal tamit moom boom yàlla dolli ko suturo mhm. li mu bëgg moom moo ko xam yàlla defal ko ka MMA bi ñu ngi ko siy ñaanal bu baa a baax a baax mu doon si champion du monde waaw loolu lañ koy ñaanal. ñu gis ñu naan ñëpp dañu bëree tànk. waaw c'est normal non mu bëree tànk Modou Lo daal dina bëree tànk mais Ama moom gisoo mu bëree tànk parce que Ama sax dara dul xaar ba ngay jël am moom piir daal na sa kaw waaw. yow ba ci kaw Modou Lo gis moo fa mooy li ma la wax rek ama Modou Lo ku jàkkaarloo Bombardier. waaw jàkkaarloo Balla Gaye jàkkaarloo Ama Sène te muy muy tëddali sa Ama Balde kon tey eh, Ama Balde mënul doon dara si yow mais Ama tamit bu jàppee ne ne moom déggoo li ma la sañ-sañ bi mu doon am mu ngi si moom ba tey mën na ñëw doo si kaw Modou Lo am ndam. mën na ñëw doo si kaw Modou Lo tamit defe defet parce que làmb moom mooy li ma wax rek yóbbante galgal ubul làmb ñun dañuy analyser nii rek mais lii xew sa làmb ja ñoom ñaar kenn ku si ne jaral na la lu ne noonu la demee te ndam moo gën a seer nag ay milliards te mbër buur la nga daan sa dëkk ñu teg la si kaw oto bi sa waa dëkk ñëpp génne di la xaar loolu moo daax ay milliards. ñoom ñaar ku ci gën a ñeme moromam jàppale ni ñu la gisee ñu communiqué ci combat bi ñoom kenn mënu si ragal sa moroom dégguloo ma de kenn mënu si ragal sa morom. kenn du kenn waaw amul du ama moo ragal Modou Lo du Modou Lo moo ragal ama ñoom ñaar kenn mooy sa moroom dara te combat bi du doon combat yoo xam ne da ngay ñëw arbitre bi na ñu teg la wal deuxième troisième kat du si am dinañ bëree dinañ xee loolu moom dafa leer parce que amaa du ko xaar Modou Lo tamit mooy même chose comme naan mooy loolu. mooy loolu. waaw ñoom a ñëpp Modou Lo comme Ama Baldé ku ci nekk la la wala rek ci fee ci ci bëreem boo jàkkaarloog sa mooy ku si ne sa manin bu ko bàyyi rek loolu mooy wax ji ku si nekk la nga mën bul ko bàyyi ndax mbër dinañ la conseil nga dem moo gisoo ama seen bi mu bëree mun a ay gaam moo waroo ma woon a téye da ngeen ma waroon bàyyi ma bëre comprends nga gars yi la téye nga joo cër di bañ a teggi seen i wax ba musuba nar la si dal ba pare may profité di jaale suma pap suma xarit ma ngay jaale di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana fii taw si amiin moom ndeysaan bu ma doon bëree mhm. da ngay yaakaar ne moom moom ma jur parce que ni mu meloon si man même suma waajur bu góor sax sonne ko si moom da fa a sonn si man ma ngay ñaanal nag yàlla dolli ko xéwal dolli ko sutura ba lépp lu mu si àdduna rek si àllaaxiraam boobu yàlla defal ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana fi taw moom bu ma doon bëree mu ne ma coince bul nii bul naa bul nii ma xam ne paa bi dafa réer te bu ma toppee conseil mën naa réer ma ne papa yow li nga wax dinaa ko def incha allahu rabi bu ma ñëwee yàlla may ma ndam ma ñëw mu kontaan kota ma bëree bëree man si géew bi kon kooku man même bébét bi ma amoon si moom ba tey du dañ lépp lu mu am si làmb dinaa ko yóbbu si njabootam. am na solo yal ko yàlla yërëm xaaree ko ak ñi fa fekk ñëpp. léegi ñu jeexale benn question ci côté combat boobu côté mystique bi. Hmm. waaw loo bi ñoom ñaar. waaw ñoom am nañ mystique muy Modou Lo muy Ama ñoom ñaar ñëpp am nañ mystique. ñoom ñaar ñëpp am nañ mystique. muy Modou Lo muy Ama. waaw côté côté loo xalaat moom la moom a indi jour bi moom la ñu a indi jour bi. xam nga ku si ne mu ngi liggéey te combat bi ñëwagul. ñoom te duñu ni daraw de tey boo xoolee seen i TikTok ak seen i Instagram yëpp kenn ku si ne yaa ngi liggéey di wane Modou Lo mu ngi liggéey si xee Ama Baldé mu ngi si xee Modou Lo mu ngi liggéey saal Ama mu ngi liggéey saal ñoom daal ñu ngi liggéey bu baax a baax te combat boobu bu ñu si tombee di ko analyser émission bi si lay yem déggoo ma de. ci lay tax loolu waaw parce que ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ ay ndaanaan lañ comprendre Modou Lo tey ku ne ko woon Ama Baldé ngay am du ko gëm même Ama ku ne ko woon Modou loo nga am du ko gëm. Mm-hmm. ah am combat bi leer de ñu gis nañ. Ama di fecce naan ku ne moo woon ne fii laa fi dinaa doon roi ñu bëri gëmuñu ko kon ko te combat bi waaw comprendre Modou Lo mu ne Ama bëre moom daf koy ne que ay moroom lañ bëri nañ mbapat Ama Baldé Modou Lo daan nga. loolu mhm. remancer tamit. Mhm. bàyyi si xel. waaw remancer. si ñaari yoon Ama remancer si roi des arènes remancer si liy couronne bi génn Pikine revanche si bëre woon nañu mu daan ka te Ama nee na woon nag bi sëll bi màgg na léegi yëkk la ñu xool ndax dina ko wane le jour si am déet. ndax dina ko wane le jour si si am déet loolu am solo. Mhm. comment est-ce gi lan la. waaw kàddu gi muy ji mooy damay ñaanal suma sëriñ sëñ Babacar si yàlla yokk leeram di nuyu benn Baye Fall boo xam ne ndeysaan moom dafa wuusi sëñ Babacar ba sama xol dafa dafa wax sëñ Babacar ba Baye Fall boobu sax dama ko bëgg a faf xaw ma saa turam dama dégg mu ne man Baye Fall laa mais bëgg sëñ Babacar rek wàññiwul si sama Baye Fall dara man tamit Coen si noonu laa mel si Cheikh Ibra Serap Fall noonu laa mel moom dama ko bëgg te wàññiwul dara si sama taalibe sëñ Babacar. mu sëñ baaba Babacar seey si suma jëmm dem naa ba Espagne réer li may wax dégguñu ko ñoom li ñuy wax man dégguma ko ma taxaw na sëñ sëñ Babacar ginnaaw yàlla yonente ba sama ñaari waaju fii yow rek laa fi yaakaar te boobu réer naa maay am vol huit heures de temps wër naa six heures de temps deux heures de temps ama dese comme nga dem naa ba toog di jooy man a man tàggoo na damay ñibbi senegal tey ñëw fii réer wala delluwaat Espagne loolu gàcce la man sëñ Babacar fii yow rek laa fi yaakaar ginnaaw yàlla yonent bi yow kese kese kese kese. laa yaakaar mhm. benn biis ñëw taxaw ma dugg si yéeg dem si sama dëgër fit parce que boobu tënku naa si sëñ Babacar bu pare yéeg si biis bi dem ñëwaat yéegaat si beneen biis boobu dem ba fi mu yem ma wàccee beneen biis taxaw ma yéegaat si mu yóbbu ma fu ma jëm kon man sëñ Babacar am na fu ma jaaraam ñëw waaw te teg si deuxième bi mooy tëgg naa fi làmba muy taw tamit ma dogu si moom naka dama bëgg a làmba ji am ba taw ba mu jee te du taw làmb ji am na ba jee ba ñëpp ñibbi muy soor a taw kon sëñ Babacar fi ma jaara moom bare na même su ma soxna ji ma takk bi ñuy nekk si relation benn siyaar général ñu dem fa ma ne ko bu fekkee li ñuy woote nii sama diggante yow dëgg la dañ jël relation bi dégg nga sëñ Babacar te tey mooy suma ma ba am naa si doom muy bébé Burhan. am na solo bébé Mouhamed Burhan mooy loolu. am na solo macha allah. Uh-huh. jaajëf kon ñu la lay jaajëfal bu baax ci waxtaan bi am na solo trop. waaw mais foog nga may ma tamit ma tudd koo am ne. Mhm. tey su ma ay nit lañu ta dañ may jàppale xaw ma di ma nga may am de. ça dépasse yow. Mhm. waaw egg waa di nuyu uh, diaspora bi bari ñi diaspora bi. Mhm. di leen ñaanal di leen wax social bi ñu ngi koy gis. di uh, lancé waat appel tamit daam social bi muy def si au niveau daara yi bari ñi si koor gi. comprendre nga. yaakaar naa gars yi ñu ngi si di liggéey. may wax képp ku si man a jàpp rek na nga si jàpp. di nuyu professeur Daara professeur Daara Ndiaye Pikine la dëkk mais gis naa ko woyof koo xam ne si àdduna ma gis nit ko woyofee noonu mu yaatu jël alalam yéene ka doom aadama yi defalu ma dara nag mais damaa toog ak moom déggoo li ma la bi ma toogee moom man damaa doyal maanaam que kooku li muy wax wax jaar-jaaram wax moom coono bi mu doon daj moo yaayam comprendre nga mu ne moom yaayam dencul dara te lu ne defal naka yaayam mais bi mu gaañoo bi ñu ñuy xoolee yaayam amul dara comprendre nga si koo xam ne tey sa doom am na teraanga di la ko jox chaque instant mais lu ko doomam jox mu joxe te nee na bëggul trahir trahir yaayam comprendre nga mu wax si développement maanaam Sénégal fi mu toll jeunes yi ni ñu amulee liggéey bu pare di jël ay bourse di ko jox élèves yi comprendre ñu mel noonu ñoom la Sénégal soxla ñu te nee na bu fekkee soxla na dërëmu Sénégal moom yàlla bu mu jariñu si àdduna comprendre nga ñu mel noonu la ñu war a jël jooleen leen suñu réew mi macha allah na solo ñoo xam ne dañ suur démb tey di soore ñëw di profité di nuyu Moussa Gueye profité di nuyu Ibrahima sek Idrissa di nuyu Mor Fall comprendre nga di nuyu Djibril Faye di nuyu monsieur le maire euh, Guèye Abou Amé Seck di nuyu mandooy maire yi suma papa jooju comprendre nga di nuyu suma maman Ñaaña Faye di nuyu suma maman Ndeye Seck di nuyu suma gaay yëpp yëpp yëpp di nuyu partout dans le monde di nuyu suma gaay yi nekk Espagne Europe bi yëpp képp kuy Bargny-Waan nekk au niveau diaspora maa lay nuyu di nuyu suma gaay yi ñëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi jàppale Quench ñu ngi lay nuyu bu wér di nuyu suma maam ba Adama di bëgg ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu suma soxna di ñaanal suma adversaire jàmm di wax baaba Jaw na ma jox dat wala laxat jox ma dat ma bëri ñaari avance dafa xew nag promoteur yi maa leen di tàllal loxo ñu ñëw joxaat ma beneen avance quoi ñaari avance waaw muy ñaari avance. am na solo noonu la demee. jaajëf kon champion ñu lay jaajëfal bu baax. mais di la nuyu yow tamit kat ab bi tamit. maa ngi ñaan mu dem ba doon tale. amiin yàlla dooli leen suturo au niveau de diaspora bi yëpp di leen bëggee. Mhm. képp kuy bëggee kat ab bi. ñu ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm mhm. ju sax di la ñaanal kooruk jàmm. Mhm. ñu woor ko si bismillahi rahmaani rahim. yeggali ko si alhamdulilahi rabi alamin di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp ku ma tuddul sax yow laa gën a gërëm. dëgg la jaajëf kon champion di ñaan aussi di nga ñaan aussi ñoon yàlla boole ñu ko ñun ñëpp vraiment champion nga gars yi dinañ jox bu beneen ñoon incha allah beneen invité toujours ci waxtaanu làmb jaa ngeen jëf